بيتي إلهنا سواه بلا حب نبي الله سورا سعد إلى المدينة المنورة محمد صلى الله عليه وسلم مسلما بدت لنا ولاه محمد فرد يفوق تسنيا وفاخ جما والأدايا مغنيا درجة المختار إبي المرسل باختلاف درجات رسولي كل نبي ورسول يتبع خلف وسيلتي والمتبع أحمد الماء الماماسا ولسوانا ساق من غسا ليغمد المختار ما لم يكن كسب سيدنا محمد ولا يكون أبدا لمنكني جماله يسبي فؤاد راي ونجو يبني عن افتراي

nee na di ñaan yàlla sunu boroom mu nangul ñu liggéey bi nga xam ni moom lañ tàmbali woon ca suba. ngir waajal ci guddi gi. ngir waajal ci guddi gi. te mooy alxuraan. te mooy alxuraan. ak xasida. ak xasida. ak kàdduy kilifa yu tedd ya. kilifa yu tedd yi nga xam ni jib na fa. yi nga xam ni jib na fa. nee na yàlla yàlla nangu lépp. tabaaraka wa te jotalal ñu ko ca kilifa ya. ci kilifa yi nee na te ka jiitu ci kilifa yi mooy borom guddik tay gii ak njabootam gépp nee na noonu la ko sunu baay alaaji ndaama daan defe kon ñu ngi nuyu mbokk yi yëpp ak kilifa yi yëpp ak kilifa yi yëpp ak am di jàmm yi ak am yi ak kóllëre yi ak kóllëre yi ak dëkk bi ak waa dëkk bi ak waa ak waa tund yëpp ak réew mi ak waa réew mi nee na mi ngi leen di nuyu nag ki turu kilifa yi nga xam ni fa la bàyyi ko ca Touba kër ma Cheikh Massamba kër Cheikh Abdoul Baaxi nee na ni nu ko waxee léegi rek sëriñ ba mi ngi leen di nuyu ak njaboot ga yëpp dare ko ci sëriñ Ahmadou ak sëriñ Mamor ba ca kilifa gu mag ga muy Cheikh Mouhamadul Mountakha yàlla na fi yàgg te wér nee na mi ngi wax rek ni li nu xëyee lépp li li nu xëyee lépp te yendoo ko te yendoo ko lépp rek mën nañ ne istidaad la wàccaay la nee na lépp rek mën na noo wax ni wàccaay la ngir jëm ci guddi gu màgg gi ngir jëm ci guddi màgg gi nga xam ne nga xam ni sunu sang bu tedd ba Serigne Saliou sunu sang bu tedd ba Serigne Saliou radiyallahu taala anhu daan na wax ni yamale na guddi gu ko jiitu yamale ko guddi gu ko jiitu ak gàcca topp ak gàcca topp dara jaru ko dara àdduna jaru ko kon ñu xam ne kon ñu xam ni eh, guddi gi dugg na guddi gi dugg na ñu fas ko dundal ñu fas ko yéenee dundal ci ni nga xam ne ni la ko Serigne Touba jàngalee ci ni nga xam ni noonu la ko Serigne Touba jàngalee te am lu mu digee ci dundal gi muy ni nga ko xamee ci jës bu ni di ko jàng bis bu set kon nanu waaj bu baax gën a waaj bu baax jëm ci liggéey bi nee na mi ngi yemale kàddu gi fii ndax ni mu ko waxee rek ci waajtaay la ñu nekk ngir jëm ci guddi gi kon yàlla nañu ci yàlla yóbbu te dundale ko ni nga xam ni noonu lan nu ko sante te suñu borom nangul ñu lépp man na ko te am na kàttan gum ko defee yàlla na nu ko defal. Eh, gannaaw ni ma ko waxee rek xam naa ni kàddu yu moom du mën a gudd macha allah eh, kii doon ndox mooy suñu xaadim imaam bu ñu nee imaam ci ndaje yi diine baaxoon nañu lépp lu ñuy def rek imaamu dëkk ba ñu jox ko mu ubbi waaye ñu xamal leen nag ay kilifa yu. tabaar tabaarakallaahu ñu ngi fi xam naa ni daañ ci ñëwaat ci kanam tuuti pour gagner du temps léegi dañuy jël kàddu gi nag jox ko ki nga xamante ni si euh, wax naa leen ko sànq mooy boroom kër gi di saytu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam euh, moom nag léegi rek bi ma koy wax dafa ni ma gannaaw ñun ñëpp dañuy demaat ca tànt ba kàddu yi sax du mën a gudd waaye kon ñu jox ko moom it mu ubbi muy suñu baay Chérif Dieye Aidara. jullit maa ngi leen nuyu ku nekk ci yéen turam ak santam famille Cheikh Ahmadou Bamba yu gën ko xam ci Xaadimu Rasuul dellu ti nuyu ñi xam ni njabootam lañu mooy famille Alaaji Maamun Daama Faal bi xam ne pinc bi pincu maamam la pincu baayam la moom mu pincu ko def ko pincu boppam mu jaaral ko lu ne mu def ci tem lu xam ne bëgg-bëggam la woon te yàlla nee na kullu shay'in lahu sabab lu waaye sababutu lu baax rek boo ti boo ti saxee rek yàlla fekk la ci mu am sabablu ak farlu ci dëkkam bile di dëkku maamam la di dëkku keneen dëkku maamam la ak dëkku baayam baayam fi la tëdd maamam fi la tëdd njobaatam fi la mu am sëriñ bu mot sëriñ tànn ko ci famille Cheikh Ahmadou Bamba mu boole nag famille Cheikh Ahmadou Bamba ñëpp def leen muy benn ti xolam ak jullitu yàlla yi kon àllaaji ndaama yan na ko yàlla xare àjjana bu gën te àjjana gi duum bu baax nag mooy uutal bu ay waajuram ñu baax mooy xaarit bu baax mooy xame bu baax mooy àndandu bu baax man àllaaji ndaama njobootam muñ ma fi indi ti àllaaji ndaama mooy Alaaji Moodu Faal mi toog ak magam bi den jëli ma ndakaaru nangu ma ci loxo ñëpp Moodu mu ne ma Chérif man dama bëgg sama baay day gàmmu ci di dëkku sama dëkku maam dama bëgg nga may ma nga gàmmu ak man boobu ak tey mi nga bëgg am ay fan te fas suma ti yéene dellu gannaaw ndax nit bu amulu ngor des na des na nekk jullit des na nekk nit bu am kaddu ufuuna bil ahdi in al ahda kaana inda allahi masuula nit day am ngor te day doylu te day xam ku ko bëgg ak ku ko bañ allah ji ndaama te kenn du moom balaa malaata dem ñetti at avant xaw ma ñetti fa ñetti at ñaari at la ñu woo Tuubaa Mbàkke ci biiru mbakke ci këram woo ñuun ñuun ñëpp mu ne restriction bi ak waxtaan bi ak wàccu kàmb bi du nekk sama kër mu ne ko fan lay nekk woo Moodu woo njabootam yi mu ne kër dañ lañu koy defee ñu wàcc fen mot fen waru kaamil bu ñu wàccee ba pare kambre bi mu woote mu ni à partir la tey den gii di sama taaw moom lay jox lépp moodu yaay jëwriñam loolu ku mu ko def ku mu ku defee sa njaboot wàcc nga ak ñoom ñu ngi nuyu ñëpp ci gàttal waa kër waa kër gi famille Fall bi fi nekk waa kër suñu waajur alaaji Modou maamu Mamoun Fall ñu gën koo xam ci alaaji Ndaama di nuyu itam bu baax waa kër morom waa kër maam borom Touba yi fi ne lii yëpp dafay wone ni diine ci benn la rek man mii di wax ñu may wax bu na kunte yàlla nattoo ma ñii di wax imaam pour pour wane ni benn la rek moo tax ma wax li may may wax li may bëgg a wax xasida bi ma jëkk a bind ci àddina tagg ci doomu aadama ci maam Borom Tuubaa laa ko bind la ko sabab Burkina Faso laa nekk en 84 ànd ak sama waajur yàlla nattu woon ma ci ma bëgg woy ma bind benn xasida wax ci ñaawteef yu ma gis ca dëkk ba ci dëkk bu ñuy wax boobu Julaso ci Burkina Faso won ko sama waajur mu xool ko ni ma xasiida bi xaafiya bi baax na wasna bi baax na li nga ci waxi dëgg la waaye fexe bay wax mbaaxu ñu baax ñi moo gën ngay wax mbonu ñu bon ñi jàngale la ma jël xalima sama xel ci maam borom Touba la ma jëkk a xiir ma bind ci pour wone ni benn la rek moo tax moo wax fi loolu kon ñu ngi leen di nuyu di leen ziar bu baax eh, waaw maa ngi ko commencé woon rek eh, xoqal bukaa u bi maam borom Tuubaa def xoqal bukaatu ala saadatin amwaati man ma tàmbale woon xoqal bukaawu ala cheikhil akabiri jublu ci nag maam borom Tuubaa mën mu ko commencé arab di ko daanee la wolof xoqal bukaawu ala cheikhil akabiri mën anil muridina xayran yàlla yàlla na ko fay ba ba mu jeex waaye ci gàttal dama bëgg a wax rek ne li fi andi ñëpp ñu fi andi muy kóllëre kóllëre googu itam moom la góor gi wax sàng alaaji jaaje mbay gàmmo gi ji ndaamu tudde na ko ku nekk tudde na ko suñu maam cheikh bu naama mi sanc fii ndànk en 1800 tudde ko fi ku nekk man bi mu ko tuddee defe naa ni suñu maam jooju ci laa jëkk a ñëw ci gàmmu gi kon ñu ngi nuyu ñëpp di ziar ñëpp di wax rek ne loolu nga xam ne moom la góor gi doon def ñi mu fi bàyyi eh, suuxat nañu ko dundal nañu ko loolu itam moo tax ñu ànd ci ak ñoom ba léegi bismillaahi rahmaani rahim mbokki jullit yi fi teew ak mbokki taalibe yi ñi ngi leen di nuyu di leen ziyaare ci bis bu tedd bi nga xam ni ci lañu daje te yàgg koo daje waaye daje bi am na sabab fam dale ba yegg si fii ci loxoy suñu baay alaaji ndaama kon loolu lañuy siyaare mbokk yi fi teew yépp di leen ñaanal yàlla sama borom tawféex sahaadatu daare ni ci barke borom Touba di jotle it ay kàddu ci turu honorable soxna Ndeye Rama Gueye ànd ak délégation bu mag ngir njëkkalanteeg waxtu wi nag dana tax duñu mën a tudd kenn ku ci nekk turam waaye buñ ci tuddee borom këram rekk mu yóbbaale ñëpp muy Seydina alin Silla waaye it ñëw teew teewaaleel jëmmi boppam mi nga xam ni géejawaay la gane àdduna moom soxna Rama mii ànd koog ah, Daawda Njaay ak sëñ Modou mii nga xam ne moom laa feggool ak njaboot gu bari goo xam ni ñoom la nekkaloon géejawaay ba dara doonu loon dara ba yàlla dogal ndombal tànk lii mu am bokk na ci bis bi tey doon bisam bu njëkk mu génn ko waaye fii la ko teewle fii mu teew nag di barab boo xam ne ardu saalix laa ko tudde man muy barabu nangukaayu ñaan bii mooy ñeenti at nag ñu di fi teg suñu tànk ñun waaye saa suñu ñëwee day mel ni tey lañ fi doog a tàbbi si ndax dëkk bi boo fi duggee rek am loo yëg loola nag ñi xam ne fekk nañ leen fi di ay mag am na luñ ci xam waaye ñun ñi nga xam ne bokk nañ ci ñi fi mujj ñëw ñu it am na luñ ci yëg nuyoo bi nag ci turu soxna Ndey Rama ginnaaw shérif ak imam yi fi teew ak ahlu mbàkki yu gépp rek ñu ngi yëkkati nuyoo bi ak ziar bi di ko teg ci loxol sëñ Mahmadan Fall ak sëñ Moodu géejawaay gëm mu gane àdduna moom soxna Rama mii ak kóllëre goo xam ne suñ sëñ da Njaay mii moom la ko amal moom it cër boobu yëpp mu yëkkati ko teg ko ci ay loxol kilifaam. xat sëriñ Bas sëriñ Bas dafa wax ni comme gàmmu dafa xat te am na yu mel ni yu mu war a def yi ndakaaru nee na nañu ko yeewi yoromal ko. ah jërëjëf waaye ñu jël kàddu gi jox ko ki nga xam ni mooy Pape Diouf ak délégation bi mu àndal. dinaa insister tuuti rek ci ki nga xam ni mooy moom laa wax ni moom moo waral bis bi ñu koy fàttaliku ci bis bi muy sëriñ Ndamo fàll dinaa ci insister pour wax dimension nit ki ndax yàlla dafa dogal ma bokk ci ñi nga xam ni 1987 ma bokk ci ñi daan jële beton bi ñu doon sotti fële ci buntu dëkk bi di ko indi di ko sotti ci fii ci dëkk bi bu ma waxee 87 booba ba léegi ku dellu siwaat ci dëkk bi di nga xam nit kooku mooy kan li ma bëgg a wax foofu mooy monsieur le maire Cheikh Sall bi ñu nuy yónni dafa ñu wax ni bu wan demee ngeen jottalal nu fi kàddu cantam jëmale ko ci góor googu waaye à travers lui njabootam gi nga xam ne ñoo toog ci sëñ daan ma la nekk ci seen kanam parce que nii nga xam ne noonu lañ taxawee ci gox bi ak yii nga xam ne moom lañuy def ci gox bi buñ fi aman ay dan yu bari ci biir gox bi day mission dana gën a woyof lool ndax gis nañu ni defuñu dara fàtte fii lu ci bëree baree bëri loo xam ne loxoom la war na nekk lu ci banaa xam ne mission la woon dañ ko cay wuutu ca duñ ca boole wax dañu koy def ba pare fab lépp jébbalaat ko cër bi mel ni ñoom defuñu dara kon daal ci turu Cheikh le maire de Meouane Dan mi ngi lay jottali sa ay cant yow ak say rakk yu am dooro waaye amul yamukaay. Serigne Ibnu Aydara Chérif Ibnu Aydara Guyat dañu koy jox une rek ndax kóllëre goo xam ne doxoon na ci diggante bàyyi ndaama ak ñoom. te kilifa yebal ñu Chérif Bekkaay Aydara di xalifa njabootu xaali bu naan Sidi Chérif bu dëkk Guyat Chérif fii ci commune de Mewane eh, ñu ngi leen di nuyu ci turam Chérif Bekkaay dey mi ngi nuyu njabootu alxaaji ndam te ka ca jiitu tey di sëriñ dan Fall e, wax na ni dippi bu mu doonee tut tànk ak léegi la doon jëflanteeg sëriñ bi waaye nag mu doon jëflanteeg ay magam nag di jëflanteek ay rakkam sunu wayjur sëñ Mahamed Mahmoud Haydara demoon na fi ba ay bëtam sëgg sëriñ bi moo ko jël yóbbu ko Dakar faj ko ba mu wér mu indiwaat ko ba tey jii ñu ngi koy jariñoo kon kóllëre googu moo ñu fi indi fii nag doy na ci ay wax village la ñu nit ci ay village lañu ñu bàyyi ko ku nekk ku dëkkoon ci village dem ndakaaru daan fa dooleem bàyyi xel village am ñëw defar village am ba kenn ku ci nekk boo fi ñëwee dinga bëgg dëkk bii sa dëkk mel noonu loolu nag doy na sëkk di ay wax doy na sëkk royukaay doy na sëkk référence ñun de li ñu war a def mooy fexe takkaayu ba dëkk village bi nga xam ne bii nii moom lañu dëkk ñu lépp lu waay am ci teraanga mu bàyyi xel village boobu bu mu fa yéemoo tabax benn kër ngir ga bu ëllëgee ku fa ñëw ni ku moom kër gi ñu ni ah kër gi day ci dëkk sàngam la dëkk loolu muy nekk taar boo xam ne bii ni day rafetal kër gi Sénégal munta baax lu dul ni kenn ku nekk dëkk ba nga dëkk da nga koo defar fii nag lu fi sëriñ bi man rek def na ko al yumnu wa yusru wa xayra sadadi fi xayri zikrin xat ataa bi madadi xat faaqa kulla zikru zikru ahadi المالك المكرم الملتحد فاز سعيد بالقرآن من ددي najaa bimaa yudiimu xayra sadadi subhaana rabbika rabbil izzati amma yasifuuna wa salaamun ala al mursalina walhamdulillahi rabbil alamin seen doom di nuyu mboolem ñi fi nekk ñëpp xanaa di def taxaw seetlu ci diggante boobu bala ñoo jàll am lu ñu fi leerlu lu sëñ Tuubaa waxoon day wax ju am solo te mun ñor ma dugg ma ba tax dama koy faral di répété ndax sëriñ bi dafa wax ne ak bëgg baax na ci mbir mu mën a doon waaye xam a ko gën te moom xam li muy baax baax coono bu nit daj ci àdduna ngir xam ba defee ne xam nga war ngaa daj bu ko raw ngir xàmmee ne ndax xam ngeen rab woowu ñu naan weñ ñu ne ko waaw Mbàkke Balla mu ne ndax xam ngeen lu ko tax a lab ci bagaanu soow ñu ne ko déedéet Mbàkke mu ne bëgg gu àndut ak xam ndax moom weñ wi gis na ne leget gi soow rekk la def te bëgg na caa jariñu waaye ñàkk gum ñàkk xam yoor wum jaar ba jariñu ca moo ko yóbbee moom lab moom weñ wi mu xoole ba lab ci soow mi te waru caa lab te lab googu mu xoole moom weñ wa ba lab ca biir soow ma te waru caa lab du tax mukk ñu tuur soow ma moom la ñuy wetti ndànk teg ko ne jariñoo soow ma loolu nag buñ ko bëggee dégg mooy alaaji ndaama tey joo gis démb ko waral koo xam ne nag fa nga baaxee nga xamul waaye baax nga lu yàgg te juddoogoo lépp lu luñ la waxal ci lu baax dangaa ngaa xamut sa bopp wala xamoo fa nga bawoo ndax sëriñ Touba dafa wax ne keroog ba muy wër di dimbali diggante Kajoor ak Bawal ba jaar ci dëkk bii mbooleen ñi fi nekkoon ku ci nekk la nga am ca jamono joojo tolloog moom jël nga ko jeex ko Cheikh Ahmadou Bamba maam Alsaan Fall mi jur alaaji Ndaama rek benn bopp machine ba mu yoroon di ci suturloowu moom la ne yëkkati ne cas fekk sëñ bi ci fas ne ko man de bàllay sa lii rek laa am te jox naa la ko benn machine am boobee moo jur lii tey ndax dafa waxoon ne alaaji mbaam dafa waroon a seex ndax Cheikh Ahmadou Bamba dafa wax ne man de bu dee am naa dara lu may rëccu ci sama mujj seexal gi ma daan seexal ci mujj gi la ndax ba ma koy def booba di jël ceddo yi ak buur yi bëgg leen a loo lislaam ak dak yi ñu yor ak jaam yi ñu yor te mu wóor na ma ne lii ñu nekk buñ ci bàyyiwul ba faatu ci kenn muntatee ñu dajeek mbugulum sama borom ma yërëm leen jël seen ceddo goog nguur googee fulal leen ko defal leen ko muy ak ceex waaye am na ci ñoo xam ne dem naa ba yég na la ma leen defaloon la taxoon ma def ko ñoom ne wuñu tëj dañoo dem ba ci digg àll ba ñu toog di noose loola te bokkuñu ko ñañ ko war a bokkal waaye banaa ko seexal ku fi defati lu jar seex ñu ne teg mu ne xaar ma fa sa jiba danaa la fa defal lu ab seex mënut ne bisa ngi ñëw féexay gën ci yéen seex ne man de koo xam ne gërëm naa sa baay mbaa ma gërëm sa maam te nga aw ci siraatal mustaqiim yaag sama doomi bopp yi rek laa yemale ñu ne tekk mu ne te yéen la yàlla yemale it joxoo ci kaw asamaan sëñ Moustapha Guèye yarowaay nee na keroog la xam ne yàllaa ngi fépp waaye ci kaw asamaan si la dëkk ndax ba sëñ Tuubaa di wax ci kaw la joxoñ ne ñaari xeeti mbaax dafa am koo xam ne dangaa juddu fekk say mbokk baax loo baax du doy waaye nit koo xam ne dangaa juddu fekk say mbokk mel ne nen loo baax ëpp na ne am na ci nit ñi ñoo xam ne dañ leen a umpale waaye li ñuy yées yées ñoo gën seeni mbokk waaye alaaji ndaama ab liggéeyam ak jëfam ci Cheikh Ahmadou Bamba njëkk na jataay bi ay atte jataay bi ak siwut fii ndax ba jamono di doy waar muy doog a samp daaraam dekk ca ndakaaru nekkandoo fa ak ñu bari di liggéeyal yàlla mboolem doomi Cheikh Ahmadou Bamba yu jigéen yi ñëpp moo gàdd woon seeni laxasaay lañ daan sol mbooleem gone njàngaan yi nga xam ne dañ leen a jël indi leen ci biir kër soxna Astou Gawane man mii di wax ak yow sama xalifa ndey ñu bokk benn wayjur wu jigéen muy doomi Cheikh Mouhamadan Fadal yaayam ak Cheikhouna Gueye bokk ndey ak baay muy soxna Mame Boussam Cheikh Mouhamadan Fadal booba mi ngi toll ci zaayir juróom-ñaari at juróom-ñetti at xoola doomi sëñ Fallou ku fi sa baay jógee 68 nga am juróom-ñaari at alaaji ma bu a ñëw ay valise indil ko soxna Astou su ñëwee danaan soxna maam bu sub mu ne ko mbàkke mu ne ko yow ñaari robb ngay am doo am benn ñi ci des ñëpp nag danañ am benn waaye la tax mooy dangay boroom ñaari cër dama laa jox cër ngir sëñ fallu sa sa robbu bàyyi bi ma waroon a jox sëñ fallu moom laa lay jox ak robbu soxna ay sëtu gaawaan loolu def na ko lu yàgg te ñu bari am nañu kër ba sampu njaboot te gane guñ àdduna kon dafa tàbbi ci la sëriñ Tubaa waxoon ne képp ku ma gërëmati sa maam wala ma gërëm sa baay nag ma fa sa jiba danaa la fa defal ab seex mënut li fi nekk Cheikh Ahmadou Bamba ko fi def ba noppi tàggatal leen boppam awale leen ci Serigne Touba Cheikh Massamba te jimmi jëmmi Cheikh Massamba day koo xam ni lenn la ci Cheikh Ahmadou Bamba ndax xasida yi daan nañ wax ne fu sëñ bi a waaj ab tukki ngir bëgga dem dañ naan ko yow day mbàkke yaa ngi waaj yëg nañ ne yaa ngi ci yoon waaye foo mën a jëm ñun xamuñu ko waaye lu mën a xew yow ba noog Massamba rek na ñu dénk ma Massamba bala ngaa dem loolu. ku am bunt boobu ñu ne kooku mooy sa bunt ci Serigne Touba loo baax doyul jataay bi munta ñàkk ci jataay yi ndax guddi gii dafa bokk ci guddi yi gënal sëriñ bi bokk ci guddi yi gënal aleyhi salaatu wasalaam bokk ci guddi yi gënal yàlla suñu boroom li ci sëriñ Touba wax ci jës bu bari na trop ci yu baree bari nee na képp koo xam ne dundal nga guddi gi ca na ko war a gën a mën a dundale yaag ña demoon xare ba Badar te mucc ca yéen a yam benn wàccuwaay fi ngeen toog képp koo xam ne jël nga lu jëm ci sukkër li sukkurin aw la xami wala nga jël ci ñam ndawal jox ko nit ki mu lekk mënoo ci ajale lenn lu dut loola rawatina ñu defe ko ci barab bi ñu ko war a mën a defe te maam Thierno Ibra Faati dafa wax ne Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasuul ñu ne tekk mu ne li may yi di rëy rëy rëy de daa dëppook jikko ji ndax bu dëpp wutoon ak jikko ji la daloon yonent yàlla Moussa ak Haaruna ca seen nit ña dana dal Serigne Touba ndax dafa am ci nit ñi ñoo xam ne ay qualité lañ kenn du àndeek ñoom sa juddu kenn du àndeek ñoom sa jëmm waaye sa jikkoy bopp ngay àndeek ñoom daat na yonent yàlla Moussa ñu ne ko waaw Mbàkke mu ne day mag waaye kon ma yedd ko ma du Bamba ko wax ndax yatam woowu mu jël dóor ko ci ca xal xalsum jaar ca jàll baraw moom muusa ba jàpp raw na firaw na defe ne mën na caa jaar dugg ba ci biir géej gi mu rocc yat wa firaw na lab labaaleel ay junni junni junni nit sëriñ bi nee na yat woowee mu dóor ci géej gi bu ko dóoroon ci xol yi ñu topp yàlla te looloo gënal yàlla te ñooñu ca faatu sa waruñu ca woon faatu day ginnaaw ba metti na sama borom lool te Cheikh Ahmadou Bamba day fa waay jaar ci foofa jaarale na faak rasulullahi alayhi salaatu wasalaam ngir bëgg rek sunu ndimbal ngir bëgg sunu ndam waaye mag ña jiitu woon loola naxuñu ci seen bopp ndax sëriñ bi dafa wax ne adduna laa leen bëgg a leeral ak àllaaxira ni mu demee ñu ne ko mbàkke mu ne dafa fekk ne àdduna boo ci nekkee daraja joo mën a am sama borom jox la ko nit ki jóge fële ngay yitteem yow ngir bëgg koo gis coono boo ci daj ren ba déwén bu dee dëgg la ci yow te bàyyi woo rek da nga ko gis loolooy adduna waaye li mu wuuteeg àllaaxira mooy ña bokk ñañ daan def rek a fay gisee. te man dey wax nañ ne Cheikh Ahmadou Bamba ñu ne teg mu ne ku ma yaakaar man ngay layool bisu pénc maa la fay layal waaye yéen taalibe yi bu kenn nax sa bopp rajaa u jannati bila temps wa sunnatu maay xururan yaati loolu moo ko bindal boppam àjjana joo xam ne lu la neex wax lu la neex def ku ko am mbaa nga dégg ko fu mu mën a doon demal te way man awma ko te bàmmeel boobu bii ñu naan dey ku faatu Cheikh Ahmadou Bamba lay teeru man teeruwuma kenn ci bàmmeel bàmmeel moom kum mën a doon sa jëfay jiitu nga tëdd ci kaw loolu moom na leen wër bis pénc gii ngeen naan bu ñu fa dajee maay leen di layal bis pénc bi sub layoo la te man de defuma yàlla lu jar may layoog moom ndax lu ma digal def naa ko te musumaaw ci lu muy tere lu mu dogal neex na ma képp koo xam ne nag war ngaa dem di layoog moom la tax ngay layoog moom yaa ko xamal sa bopp boo demee nga tontu sa bopp waaye lu waay jëf yaa ko moom lu waay jëf sa bopp lu waay def sa bopp Cheikh Mamadou Basiiru mii képp ku muy jëflanteel na leen wóor ne yàlla la xemmem ci yow ndax Serigne Touba mii suturaal teel na koo suturaal ba mu amee teraanga manal téeméeri nit ci benn bis biñ ko seetee ak tey mat na fukki at ak juróom-ñett yoo xam ne moom daa dem ba yëg ne ñi nga xam ne lislaam yi kese ne ci ñoom diine kese ne ci ñoom njàmbaaru kese ne ci ñoom ñooñu képp la jàpp ne foofu la war a doolee maamam ndax benn taalibe bi mënta dem te amoo ab sëriñ bu lay gunge te kenn ku ko ëpp xam-xam fanaanul ci yoonu murit ci moroomam mokkal lool alxuraan jàng xam-xam génn dem Tunisie dem Maroc bale doomi soxna yi war koo xam mu tàggat jikkoom jëflanteeg nit adduna yi waaye kenn kenn kenn kenn koo xam ne Cheikh bas moom sëñ Xaadim gënalu la sa bopp ci sa biir ak nii mu sagale Sëriñ Tuubaa ci taruxa yi ba képp ku fa dem luñ mas a waxal Cheikh Ahmadou Bamba jikkoy boppam weddi na loola loola Mbàkke say sas sab sas la sab liggéey la te loolu na la wóor na mooy sabab sag yàgg fi ni nga taxawoo ñii na la wóor na ñëpp xam nañ ko nu leen waaye jàppe xam nañ ko waaye sëñ Mahmadan sa doomi bopp di Cheikh Ahmadou Bamba Gueye yi sëriñ Cheikhouna ñu dina ko ñu ñu lay seedeel njàmbaaram ci Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasuul sama mag ji ma bokkal benn wéyjur muy doom yi sëñ Fallu bisub gàmmuk daaw la jëlee oto bu kii maanu Amérique indi ko oto boobee laa indi fii man tey jii ngir mën a ñëw teewe bis bi 18 laa jóge Touba ngir ñëw seede sëñ Thierno Gelawngal sama baay daaw moo jënd ab Chevrolet ca Amérique def na ñetti at ñëw gaare ko kër Assou Gawane ca Almadi woo ma ne ma sëñ Saliou oto sëñ Thierno bi ñëw na. barki Dembo Ndiaye ñëw nga Touba yow sëñ Dan kër sëñ Aziz Dar bu muy def sëñ te dafaa ñëw fekk ko mu toog ci circonstance yu xat mu ne sëriñ bi fii nga toog lu ko waral mu ne ko man day fii réclame di fa dalal taalibe yi mu dem engagé ko def fa mbaar moo xam ne jaral gum la jaral ak dëggu goo dëggu ndax ku dul dëggu ñëpp xam nañ la ñu baax xam nañ sa jikkoo xam nañ sa comportement wóor nañu wóorug yàlla doo neexal ku yàlla sàkk te jaxasoo jafe na day jëflante waaye jaxasook yow maanaam jaxasoo ku fi néewut ci kaw suuf gën a yomb jaxasoog yow te sa jikkoy rek a tax lamboo nga jikko joo xam ne bu fi alaaji ndaama nekkoon mënoo ci weesu lu toll na tarfatal ay ni ndax loolu mu defal Serigne Touba bu ko maxtaar sa doom jii nekkee loolu danga ko def bu ko doon def da nga jógee foofu dem ba foofa te mënoon nga ne kat sama goro la sama doom rek laa ko jox chantier yu muy defal ab sëriñam sama yoon nekku ci waaye contrôler gi ngay contrôler yoonu mu murit ak di settantal ñi dëggu te jub te tegu ci yoon loola yéen ñëpp yéen ko bokkule dof juru leen dof yaru leen ñi ngi leen di nuyu te di leen siyaare tey jéggalu kàddu yi tey sant soxna Sooda sa doom taxawu na sëñ Seexuna jàppale na ko ci mbokk gi lu baax lu amutoon ñëw na yaatal lépp man daaw màggal ma mais biig bi may ñëw laa xam ne tali bi kenn defaru ko bi ma dikkee immédiatement j'ai interpellé le directeur de cabinet ne ko demba mu ne am ne ko luy jot jot na tëli bii nañ ci wax tëli bii nañ ci wax demba ne ma bu ñu retourner encore on va reprendre les mêmes correspondances et immédiatement man puisque joxoon nañu ay instructions Ibrahima Ndiaye dinañ ci wasuwaat àq kon ñu ngi ci Macky Sall dara ñoru ko lu Sénégal moo ko ñor doléance boobu nag ñun ñi nekk ci cabinet président muy un cabinet officiel dinañ ci jéem a wax bu ñu demee jàmm di ñaan aussi ku mel ni Bassirou Khadim Awa Ba moom mën naa sax ne moom ci cabinet virtuel du président ci la bokk da koy gis ñuy wax. ñuy def seen i muy mu président di ko recevoir constamment donc sëñ Bass aussi am nga ci benn rôle boo ci war a joué ci affaire boobu boo demee waxtaan ceeg sëñ bi comme ni ko léegi sëñ Jaaji Mbay waxe ne la l'année prochaine aussi war ñu def benn CRD local comité local de développement pour ñu CRD problème électricité bi donc yëpp defe naa dinañ ci waxaat bu soobee yàlla ndax dëkk bi jar na ni mu taxawee ak ni ñu war dëkk bi dëkk bi. war naa tax ku ne bas lu ci àq. célébrer la naissance du sceau des prophètes Mohammed sallallahu alayhi wa sallam di leen wax ni man nag souvent samay wax duy faral di gudd dara li ngeen fi wax dégg nañu ko waaye ñëpp xam nañu ni man bi ma fi ñëweek léegi yàggul man defaguma fi ñetti weer donc lu bëree bëree bëree bëri lu ñu fi wax daaw bañ koy wax fekkuma fi woon waaye administration continuité la. njàmbat yi ngeen fi njàmbat mu jëm ci tali bi man fa laa jaar donc euh, am na lu ma ci xam ci wàllu courant bi egalement li ngeen ci wax xam nañu ko parce que am na lu ñu ci dund am na beneen boo xam ni sax xam naa am na ñu ko waxul muy réseau téléphonique bi parce que man ma ñëwee ba léegi euh, donc même appel mënuma ko jot mënu ma yónnee message loolu yëpp ay remarque la yoo xam ne def nañ ko waaye ñun liy suñu rôle mooy bu ñu amee lu ñu war a wax. ñu wax ko ñi nga xam ni ñoo nekk ca kaw te war a jël décision yi te incha allah loolu dinañ ko def nu mu gën a gaawee fi may jeexale rek mooy gërëm ñëpp ñi fi ñëw di ci jiital monsieur Dan monsieur Mahamadan Fall parce que temps yëpp ñoo ngi wax téléphone ak Modou Fall mi nga xam ni moom moo nekk ci kaw boppu famille yu Serigne Ndama Fall parce que comme léegi kii ni mu ko waxee fii ku fi ñëw xam ni am na kilifa gu fi nekkoon.